dal leen ak jàmm coalition yeewi askan wi yéenekaay yu bari naka ca la ñu xëyaat di yeew ak a yeewi suñu naataango yi syndicalisme point net lenn rek lañ ca gis te mooy naka boobule coalition xet ya ko tiim am na si lenn yoo xamante ni fu nax nañu te boo moywul naka mun na xajamal cere ji ndax ku nekk ak na mu ko gisee Abdoul Mbaye ci l'observateur wax na fukki dëggam jëmale ci Ousmane Sonko ak Khalifa Sall Abdoul Mbaye nee na Khalifa Sall ak Sonko la ñuy nas si suuf nag yenn ci lëndëm lëndëm ya mu gis nag loolee képp moo tax ñëwul bokk ci coalition bi ndax itam ñoom ñaar rek ñoo fi nekk di nasakanoo ci te loolee nag mooy jafe-jafe du leen ko indil Abdoul Mbaye ay kàddoom ci l'observateur l'info yéene kaay ne Khalifa Sall nag am na lu rëy la koy xaar ci ay défi yéene kaay bi ne lu weesu wàllum transparence ci élection yi ñu jëm moom Khalifa Sall naka donte ne nag ñu bëri ci kuje gi ñëw nañ waaye nag war nañu fexe ba ña des dikk waaye itam fexe rek ba caabi law seenub coalition boobee ngir rek moytu yàqkat yi Walf Quotidien na moom lu yees bëgg-bëgg yi diirante ni moo ba léegi waa yeewi Sall Sonko le duo salvateur wala boo ko ànduk njuuma nee na système ak anti système bu ñu lëngoo day mujjee lëndëm te sax nag boobule coalition ay contradiction rek la dal dee wasin trouble fête la ko mandat quotidien dee moom Bougane Gueye Dany moom mi dugal benn tànk génnee ba ca des ndax am na ci loo xamante ni moom jiital gëm sa bopp nee na leeragul ci xelam ki leeragul ci xelu askan wi mooy wadd Dior la kenn xamagul fa mu bokk nataalam ci direct news Wade nag moo ngay sargal ay ñooñ politique am yu dëddu àdduna les échos yéene kaay maire bu Médina Bamba Fall la xëy dalal faalin bi nag moo ngay Ndañ nee na les anciennes gloires yi deful dara Médina dañoo war a noppi faaleen bi ne am na ci candidat boo xamante jënd na ay ngànnaay yu bëri dénk ko benn pëmbër Bamba Fall yokku si ne dina weer fàng sàcc yi ba noppi duma leen bu baax a baax ci élection yi ñu jëm fu ñu jëm ak seeni défi Vox Populi ne lu rëy nag mooy xaar waa coalition Yewwi Askan Wi professeur Moussa Diaw ci biir yéenekaay bi nee na boobee nag ay change du bëri naka ci coalition a tas ci département bu Kër Massar ko dara soxna yu Benno Bokk Yaakaar lu weex xatt lañ ko dal bu parti démocratique sénégalais ne dinaa ko duma waat ci yëmbal boobee nga xamante ni yeewoo lépp nag moo ngi ci biir yéenekaay bi di grand place place bi ko waa enquête yéenekaay jox tax na nag ba mu wax lépp lak la mu guuxoon jaar-jaaram rëcc-rëccam ak candidaturam ca Rufisque lépp nag moom Ismaïla Madior Fall wax na ko professeur Ismaïla Madior Fall nee bokk na ci ñi ëppale ay décret de nomination ci état bu Sénégal le quotidien yéenekaay leneen la xëy ak ñun ji ci ngoon bu 16h jotee dina fas yéene jàmmarloo ak réewum Côte d'Ivoire dóor ngir taxaw final kon ñoo ko déggandoo jàngeen jëf ba ëllëg